alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salaati wa atammu taslimi ala sayidina muhammadin sadiqi alwa'di alamin wa ala alihi wa sahbihi hurril mayamin wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din ama ba'd nuyow tabarakallahu mboolem waa jotaay bi yépp kulluhum si diggante góor jigéen mag ndaw xarit soppe ak imaam yi fi teew yépp ñu ngi leen wax baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi li nuyoo bu làmboo si jàmm ak si yërmaane ak si barke yal na yàlla dotti ko si seen jëmm yi tedd ak si bëccëgu weeru koor wi si bis bi si semaine bi si weer wi ak si at mi ba déwén incha allah kenn bañ a manqué sëñ gannaaw nuyoo bi yow daa mel ni sax lii ma yor nii yaakaar naa yaa ma ko dàq yaa ma ko dàq fuuf tabaarakallaahu waaye ñi ngi sant yàlla bu baax a baax tàntal nañ ki gën si mbindeef yi ki tax ñi bind ñi xalaxtu ko li ajili wa xalaxtu xalqa li ajili ka dafa bind boppam mu wéet mu bind sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak seen taar seen bii nii mu bind ñi ñun ngir yonent bi sallallahu alayhi wa kooku lañ tàntal moom la waykat bi wax ne antalil kawni bahjatun wa baha wa tajalla bi nuurika salma xolal anta law laa kalam yakun kullu kawnin mu ne kullu kawnin bu taxutoon ne yonent bi dara yàlla doo amal dara kullu kawnin ñu ne ko lu tax mu ne wala ma zaada an sawi shiqa kon kenn du texe amul kenn kuy texe waaye yonent bi rek moo tax ñuy texe jërëjëf yonent bi sallallahu mu ne nag li muy taaru taaru daaxa min kal wujudu xastantanaarat min maqaabisi dawhikal anbiya xolal wax ji daaxa min ka wujudu kaaf gi damiir muqaatal ba day dellu si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne daaxa min kal wujudu xastantanaarat min maqaabisi dawhikal anbiya waaye wallahum kulluhum muxjisaatun ajasat an amsaaliha asfiya bi dew ñoom ñi ngi leeree ci weer bi mooy jant bi kon wallahu min ko kullu mu'jizatun ibrahima kana yëgu leen ne li imam nar a waxtaanee ala asamatu axlaaq maam jukki yi yàqu yi suñ ko xoolee ak li may wax nii dafa munaasabante maanaam dafa ràbbaloo laa bëgg a wax kon ñi teelu bu baax a baax li mu nar a waxtaanee mooy jukki yi yàqu yi jukki yi yàqu nag pour dugg si man damaa gëlëm sax si jamono yi ñu toll nii ndax bu njëkk ñun duñ mag waaye li fekkee maire bi maa ngi koy bu baax a baax ak ñaawaayam li fekkee bu njëkk a tabaarakallaahu mooy jigéen danaan am doom danaan dem sa àll ba ba wàcc ñëw am doom si këram ta du dem hôpital waaye kon jukki yi yàqu yi balaa nit am doom ñu ne nañ dem hôpital kon loolu bokk na si jukki yi yàqu yi bokk na si jukki yi yàqu yi mooy. jamono ñi ñu toll nii tey bu tabaski jotee kër gu si nekk danañu rendi lum néew néew juróomi xar juróom-ñaari xar suba gannaaw suba dootoo gis ndawal jukki yi yàqu yi dara barkeetul am wala kon lii yëpp mën nañ koo dugal si jukki yi yàqu yi ak yeneen ak yeneen yoo xam ni dañuy bañ temps bi gudd waaye pour ñu préparer suñu bopp te xam ne li muy rafet rafet borom waykat bi dafa wax ne yaa sabiyata asbaha sayin bi maha tara alxusaama bayna asjaari naja imma tara ra'sa haaka lawnahu turata subhi taxta asyaalin duja ñu ne lan mu ne wastaala ra'sa almubyada fi muswaddi misla istiaari naari fi jasil xada wa darramu na'yil musiitu jaswatan ma tëtali tasfau asna ala asa i nga der bii nii suñu xëyee dañuy sangu bam set wicc diw ko bam leer nañ waaye wa darra mu nag yi musiitu jaswatan maa tëttali taswa asna ala asa fa mi mujj rek mooy fale wastaalal mubyada fi muswadi misle istihaali naari fi jasil xada al xada mooy bopp bi tabaarakallaahu karaw gaa ngi ñuul waaye fa mu mujj rek weex tàll ba commencé xonq mu tax mu ne wastaala rasa al mubyada fi muswadi misle istihaali naari fi jasil xada wa aada rawdullahi yabsan saawiyam min baxdi ma qad kaana majaaja sara tabaarakallaahu kon daf ngeen li gën waaye yal na yàlla may leen li jotaay bii nii allah du dakk ilal abad rek incha allah chaque année rek ngeen di ko gën di man ndax lii mbooloo mi néew na de waaye rëy na si yàlla yàlla xam na ko rëy na sa yàlla xoolal jotaay bii nii xolal toogaay bi ak ni mu tuutee waaye lii la yónnente bi bëgg lii la suñu borom bëgg sa kaw ci kanam rek incha allah damaa ko wax te fi ma ko fi ma ko teg xam naa ko bu baax a baax xam naa fi ma ko teg de ñu ngi si bëccëgu weeru koor ñu ngi si waxtu diggante tisbaar ak takkusaan kon li may wax xam naa ko lamantuwuma passé naa wax lu ma xamut incha allah xalabat fiatan kasiratan bi isnillah wallahi ndeysaan macha allah barakalaw kon nañ gën a góorgóorlu yaraat xale yi yaraat tabaarakallaahu doom yi ak mboolem kilifteef yi ndax sang bi wax na léegi al imam ndaw wax waq fihimu innahum mas'uluun te lu dafa jar ñi leeral ko bu baax a baax nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax si njaboot gi yar xale yi jamono yi ñu toll nii man waaru naa ndax man xay ne li may xam xam naa ko ba pare donte la bëriwul waaye jamono yi ñu toll nii ndaw yii nii yaram naa leen ndaw loo xamagul dara di tëñax at jotul paaka jotul fetul jotul njàll ak ñoom la ndax ñoom bi nga xamante ni bi muy nekk ak yéeféer yi ñi añee xar di reeree xar di ndékkee xar ñoom ñi lekk laaxu bisaab ak laaxu dikaar lu taxoon pour xeex ak seen bakkan ba mën a taxawal lu mel nii parce que borom xam-xam yi dañuy wax ne alkayisu ma daana li nafsi wa hamila ma baada al mawt nee na ki yeewu dëgg ki mu dëgg mooy ki nga xamante ne dafa xeex ak bakkanam ba mën a def ndigale borom bi tabaraka wa taala ba mën a taxawal société sayduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fii ci kaw suuf loolu nag nañ ko sante suñu kilifa diine yi nga xamante ne li mbokk mi doon woy fii sëñ Tuubaa jërëjëfe sëñ Touba moom mi nga xamante ne moo taalif téere yooyu wax ci li nga xamante ne moom la tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xamante ne bëri na ko tagg waaye fi mu yegg ci tagg Seyduna Muhammad néew na koo xamante ne yegg na fa ndax moom ay xasidaam yëpp dafoo tënk ci alquran ak sunna xasida bu sëñ Touba bind alquran la ko liggéeyee kooku nag su boobaa ñu ngi sant suñu kilifa diine yi bu baax su ko defee jataay bi gën a bañ a gudd su ko defee li fàttali mbooloo mi rek moo di nañ bàyyi suñu xel ci bopp ci addina gis nga man tant yi demee nii su ma ko la may fettali rek mooy yowmal xiyaam fii dina bi jeex di jeexee yàlla di taxawal bés penc gis nga tànt bi tey fa tabaarakallaahu gis nga ni mu mel ak ni mu taaru ak basang léegi man li may fàttali rek mooy bu bu addina di tukki parce que addina bi ni ma ko jàppe moon mi ngi mel ni diirab li ñuy tànt fii toog ci tànt bi def li ñuy def ba pare tànt bi jeex ñi di tànt bi lalli basang di dindi micro yi dindi sées dindi lépp bés dana ñëw bési yomal xayaam yàlla dana dindi suusi mooy tànt bi tim ñu tey bés dana ñëw yàlla dana dindi suuf si ñi nga xamante ne ci la ñu toog te mooy basang yii yàlla dana dindi jant bi dana dindi weer yi te mooy lumière yi lamp yi nga xamante ne moo fi ne bu subaa ci heure bi boo fi jaaree mel ni dara la neexutoon fi kon bés boobu mu nañ ko bàyyi xel bu baax mooy bésu yowmal xiyaam mooy addina buñ ne yàgg na yàggul buñ ne nag addina dana tukki ñu bëri day jaaxal nit ñi mais bés dana jot yàlla dindi dindi lépp lu fi mosoon a nekk taxañ jant bi rocci rocci suuf si lem asamaan si dinde yëpp su ko defee nag ñi taxaw ci konom borom bi tabaaraka wa taala bés boobu moom la alquran di wax ne bu boobaa bu ñu tasee yàlla dana wax foofu ne foo waqifuhum innahum mas'uluuna maa lakum laa tanaasaruuna taxawal leen ñoom ñëpp bu yaakaar day jaar ñi jaar kenn ku ne la nga nekk woon fii ci addina danañ leen ko laaj dant yi damay fàttali ba tey benn suur ma Masamba Mbakke taxawal na nit ñi lu digg bëccëg ci naaj bu tàng tàng di leen tegtal taxawaayu yowmal qiyaam muy naaj wu tàng une heure une heure et demi mu ñu daal di def ay sàppe gis nga mbindeef yi doomu aadama yi jinne yi malaaka yi su ko defee ñu ne doomu aadama yi dañuy def benn benn benn sàppe bu ñu defee benn sappe jinne yi jëw ñëw wër leen ñaari sappe bu leen jinne yi wëree ñaari sàppe malaaka yi ñëw wër leen ñetti sappe ba ñeenti sàppe su boobaa doomu aadama amul fu mu jaar te kenn ku ne su boobaa bala nga pëccitoo fokk la nga nekk woon fii ci kaw suuf da nga rendre compte suñu borom bi tabaraka wa taala ndax yàlla kat dañ wa dafa waxante hu ne ñun ci xaalamul arwaa ne alastu bi rabbikum alastu bi rabbikum xanaa du man maay seen borom ruux yëpp ne ballaa léegi nag lan moo tax ñu wàcc fii ci kaw suuf balaa jooju ñu waxoon ba yàlla ne alastu bi rabbikum ñu ne ballaa boo yàlla waxee loolu ba noppi nag mu ne leen nag wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduni binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ma lu tax ñu nag lan mooy tax nag ñu wàcc fii ci kaw suuf kóllëre boobu ñu fasoon na borom bi tabaaraka wa taala bëgg ko weddi bëgg a ñàkkaa jaamu yàlla kon mbokk yi nañ jaamu yàlla nañ ragal yàlla nañ topp yàlla fa tabaarakallaahu tant bi yal yàlla gërëm ko tant bi yal yàlla gërëm ko te man am naa ci yaakaar ndax wàcce nañ fi téere bi gën ci téere yi te mooy alquraanul karim def nga nañ ko ci weer wi gën ci weer yi te mooy sahru ramadan al mubarak kon tànt bi fa tabaarakallaahu euh, jigéen ñi seen daje bi man am naa ci yaakaar yal na yàlla nangu ko yàlla bu mu nekk suñ jug daje yàlla ngeen fi yàgg lool di organiser lu ngeen man ren lan na ngeen man déwén lu ko ëpp yàlla gën a dëppale xol yi te it li may li ma ciy dugal foofu mooy salaaw salaaw waxoon na benn kàddu te ba mu koy wax dafa génn lu mat ñetti yoon ne wallahi laa yuminu wallahi la yuminu wallahi la yuminu ñu ne ko mu ne xataa yuhibu li aqi maa yuhibu li nafsi kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul li nga xamante ne moom ngay yéene sa morom sa bopp ci lu baax ak yiw nga yéene ko sa moromu jullit kon nag julli yi lu mu bëri bëri woor lu mu bëri bëri te xol yu laabul su boobaa du amul amal njëriñ xol yi nañ génne xol yi ci sirk ci rëy ci añaan ci soxor loolu yëpp tànk défense wut ci xol yi su boobaa dara du baax xolu jullit dafa war a xolu julli dafa war a sell xolu julli dafa war a leer kon nag képp koo xamante ne sa xol ëmb nga ci keñaan wala soxor wala rëy waaye yaa xam yooyu yëpp na nga ko dindi sànni ko ca kanam parce que nag al kibru ridaullah dana rëy lamba làmbayal yàlla la te yàlla nee na bépp bakkaar mën naa ko bokkaale ba mu des koo mën naa ko jégale ba mu des koo xamante ne day bokkaale ak borom bi tabaaraka wa kon rëy dama ne jëmmu yàlla lan rëy nañ ko bàyyi yàlla yàlla dong kott rokk dong moo rëy ñun ay jaamam lañ nañ tottooral fii ci suuf def ay ndigalam bàyyi alsanaatim ba bañ ko fekke suñ ko fekkee lu ko neex mu def ci ñun yaa xay buñ jaamu yàlla ngir bëgg aljana yaa xay buñ jaamu yàlla ngir ragal safara nañ jaamu yàlla ngir def ndigalu borom bi tabaraka wa taala moom mi nga xamante ne moo ñu waxoon alastu bi rabbikum ñu ne ko balaa mu ne leen binduma leen nit ak jinne lu dul ñi def sama ndigal fii ci kaw suuf kon ndigalu borom bi tabaraka wa taala fii ci kaw suuf mooy salte yi nga xamante ne moom la fi ñeneen ñi teg yam nee na yooyu nañ ko bàyyi li nga xamante ne moo laab li sang bi doon wéy ci xasidam bii li sell fii ci ko suuf ñi jéem ko taxawee di ci dund di ci yar suñu njaboot di ci yar population bi kon fa tabarakallahu sëñ Mor tafadal marhaban ahlan su ko defee jisita xayran ku fiita ma baqitu wala laqitu durra fa tafadal eh, yal na yàlla ubbi dënn bi yal na yàlla leeral xol yi lépp lu ñu fi dégg yan na nekk samihna wa atahna bi jaay seydil wujud waxalami suud seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa tabarakallahu kontaan nañ mu baax yal na yàlla taq dëppale xol yi yal na yàlla tappale xol bi ni ko sang baraan waxee ba lii at mu jot mu gën yokk yokku gën a màgg gën a yaatu fa tabarakallahu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni maa ngi moom duñu ñaar benn lañ lu ma dogal ci moom mu dog lu mu dogal ci man kon koo kii maa ngi koy ñaanal yàlla saa yu ma jugee mu jug saa yu ma jugee mu jug tey ñëw na ànd seeg man ci jotaay bi naka noonu maa ngi nuyu sama xaritu bopp bii doxawoon fii di wax nga xamante ni maam moom yàgg nañ lool ba may daw di dem daara ja moom laa fa fekkoon foo dëkk Saalum foo dëkk ci Saalum ma ni Kaolack fan nga dëkk man man Thiamène Walo yàlla dogal ma ñëw bi ma ñëwee Kaolack sama papa daa may xaalis may dem seen dëkk di fa seet turandoo laa fa am fa incha allah rabbi dinaa ko fa am su ko defee nag yooyu nag kooku nag maa ngi koy nuyu baax di ko ziar muy Seyda Ousmane Thiam mi di wax ak yéen li mu wax ci man dëgg la làmbatuwuma ko ma xam la ndax ñoo bokkoon lépp tey kay bu ba yàlla dogal ñëpp yàlla dénk ñu li ñu dénk ndax bu ñu jógee koo fii nii nii nii am na fu a dem te moo a dem moo tax su ma paree damay ànd moo ñuy dundal loolu la ñuy serviral kon su ko defee bu baax di ko ziar maa ngi nuyu sama xarit sama doomu ndey koo xamante ni ragal naan kenn la ci man ràq la doon ci man ràq joo xam ne dafa sës rëkk ci man te rëkkuma ndax it wax dëgg yàlla mënoon nañoo jàngi ba ñëw nekk fi di doomi soxna ñuy fiirante wala ñuy dóorante waaye defu ko mag la joo ràq la joo xam ne ràq ju ma déggal la du dugg dara dara lu ma yëgul lii bañ ko jàppee ba léegi ma envoyé ko affiche bi wax la ma koy wax la commencé di ma xelal commencé di ma di ma jox ay ay ay ay tegtal pour ma mën a gagné combat bi yii mu ma ko wax muy sëñ daara kam yi maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla yàlla wéral baatam waaye yàlla yàlla guddal xam-xamam waaye rafetalam ak rafetam ci koñ bi yàlla na ko yàlla yokk loolu yàlla mën na ko ndax sama xol laa ko tibbee ndax damaa kontaan ci moom loolu ndax fu ma jógee rek mu jóg lu dugg dara lu ma yëgul te saa yu ma tukkee ci àll bi su ma ko waxee ni ko ma ko kon maa ngi koy sant di ko gërëm waaye di ko seedal suñu yaay yi yëpp ndax li may wax ci man rek li ma wax ci man man rek moom laa wax ci moom ndax moom it daa jàngi woon ñëw bàyyam teggi ñëpp teg ko te loolu wax dëgg yàlla doom la bàyyi la jur ba pare wóolu la gëm la te bàyyam da ko wóolu gëm ko mu gëm loolu waaye doxeewu ko waxeewu ko ndax saa yu waxtaanee dinaa xam ne doxee ko waxeewu ko kon ka maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal di la nuyu bu baax la ziar la wàcc sa wàcc waay naka noonu tamit maa ngi nuyu sama sama bàyyi bopp naa ni la ko sama baay ji doon jébbal ma muy baay ndaw mii tey mu di ma dimbale ci lu bari nag nga xam ni am nay jamono xel bu naqari boo xamante ni mënu ma woon jàpp dara laa yoroon sama papa di dem syndicat a dikk mu yor daaraam ju ndaw di ko jàngale sa koñ ba ma yegg fa ni ko fii laa toll mu yëkkati dara jox ma ci laa amee fatul akbar ba fi may wax ak yow nii kon kii sama baay la jox ma sama baay bopp la maa ngi koy ñaanal yàlla di ko sant di ko gërëm taxawaayam ci man dëgg-dëgg rafet na lépp loo xamante ni jig na waaye rek mën naa am jigul keneen ka noonu la yàlla mbedd mi waaye man man ak moom yàlla moo ñu boole kon maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaar di ñaan yàlla yal na yàlla guddal fanam kennam yàlla na ko yàlla yokk yàlla barkeel ay mbiram bàyyi ko suñ kanam ba ci kanam a kanam naka noonu tamit maa ngi nuyu Cheikh Fodé Ndiaye mii di àndandoo Babacar Ka àndandoo Baye Babacar maa ngi ko mii di nuyu ñëpp di nuyu suñu bokk doomi soxna yi fi toog imaam Youssoufa Niang maa ngi ko fi gis sànq moom ndax bañ jàppee mbir yi sama kër laa toog woo ko téléphone mu ne ñëw te la waxoon def na wax dëgg yàlla di ku baax di ko woyof di koo xamante ni kilifa la fi sampaloon kilifa bàyyi ko fi mu continué fañ ko joxoñoon ba léegi ma ngi fa dérapé wut ndax bu dérapé woon waa koñ bi wax ko moom imaam Youssoufa ñu ngi lay sant yaag sa mag di leen gërëm di leen ñaanal yàlla daal di yàlla na ko yàlla yokk Cheikh Abo mii nga xamante ni nag sama séddoo bopp la ndax lii muy def defin la boo xam defin bu am xorom la fi mu toll ni ko ñu nekk ci ko bi koo consulté portable di ci fekk ay jàngam mu gëm lim nekk lool daaj bi ku ñëw noonu ko ko xamee mu di ko def sonn ci lool na kon maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla yokk ay mbiram waaye di ko nuyu itam di ko ziyaar di ko wàcce wàcce waayam di nuyu nag sama baay Ibrahima bii nga xamante ni diine ak lislaam da ko ñor lool fépp ñu ko tàntalee ñëw na di ko nuyu di ko ziyaar di ñaan yàlla yàlla bàyyi ko suñ kanam a kanam di nuyu nag sama xarit bopp sama séddoo bopp ndax it wax dëgg yàlla bi ma jàngee ñëw bu doon nit la ñi ma njëkk a dénk boppam ci la bokk kon maa ngi koy ziar bu baax ndax lum xam wax ma fu muy dem tàggu ma buy dem dénk ma njabootam kon alaaj Tamba maa ngi lay ziar bu baax di ñaan yàlla yàlla bàyyi la sa sago ak pare yi fi nekk yëpp ak jigéen ñee góor ñi ñu ngi nii ñëpp di nuyu nag sama yaay bopp di ko xaasal nuyoo di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko sutura mu mel ni nag nuyoo yooyu ak la ñuy nag fa tax ci thème bi ndax wax dëgg yàlla dañoo guddee te ku guddee du guddal ndax nag fii may ngay teewlu jataay yi yenn yaram yi mënatuñ ko li ko waral ci jamonoy koor lañ nekk lu ko waral wér dafa amatul kon nag ci taraanga weesu taraanga gën tare ñu ne nag bi de yow yaa tax ñu ray ko loolu bu la doy dara dootu la doy doy na ma rek yéen ngeen xam ne yéen a ma jur fii laa juddoo ci yéen ngeen yëkkati seen ay mbir jébbal ma ma bokk ci conférence bi leen nar a defal fas yéene defal tey loolu dëgg-dëgg ak sant yàlla la. su ko defee nag loolee kenn leen di jaajëfal sant ñëpp gërëm ñëpp te di leen balaa rawatina na koor gi ñu nekk. su ko defee nag mu mel ni maa ngi waxtaane nag loo xamante ni lu jafee waxtaane laa ah, lu jafee waxtaane la. suñ ko waxee mooy al ans al ansamatul axlaaqu jikko yi yàqu yi crise des moom lañu ñu fas yéene waxtaanee bisimilah. bu ko defee nag loolu yi lañ fas yéene waxtaanee mu mel nag loolu tey suñ ko waxtaanee ci société bi yell na jaadu na yell na. jaadu na ndax li li tax nga xam ne yell na jaadu na dafa am lu ñu tuddee jikko yoo xamante ni moom mooy crise des valeurs crise des valeurs nag suñ ko waxee ci ji jamono mooy ne dañoo yaradal ay jikko moo dugg si noonu kon bisimilah délégation bi nga xamante nii moo mooy délégation Mouhamed Ndiaye Rahma ñoom ñoo dugg si noonu ñu leen wax dal leen ak jaamu di nuyu tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñoom nañ àndal di suñu ay rakki bopp ñu bokk ak ñoom liggéey bi bokk ak ñoom waar ñu bokk feneen foo xam ne fa la ñuy yëngutoo ñi ñuy yëngutoo fii waaye lépp di ngëneel muy soirée mii nga xamante ni ab Abdou Siñaan ñu ngi si si ziar di leen wàcc seen wàcc di leen wax dal leen ak jaamu da ngeen yegsi rek fekk ñu présenté gan yi ba yegsi waaye noonu la su ko defee ngeen xamee ko noonu su ko defee ñu ngi lay ziar bu baax sang yaaram di nuyu tim sa jigéen bi nga xamante ni moom nga àndal mu accompagné la ci délégation bi di leen ñaanal yàlla mi nga xamante ni moom moo am jaamu yàlla leen leen defal jaamu ndax ragal naa ni imam Badara Ndiaye mi sonn ngeen trop yéen a ci ay élection boo ko la tiré ngeen ko déggu ci guddi ba pare di xaar suba incha allah di ñaan yàlla yàlla yàlla eh, rafet résultat yi seen kanam soxna Khady Diop la àndal moom it ñu ñëw léegi fekk jotaay bi ak ñi ñu àndal ñëpp di leen ziar waaye di leen jégalu di leen masawu ci coono yi. waa kay loolu la Imam Badara Ndiaye mooy doog a yegg si sànq di al siñaan ak soirée ñooñu suñu ay rakk lañ loo xamante ne ñoo bokk nekk presque ñooy bokk yëngandoo yëpp kon ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar. su ko defee dama doon présenté rek thème brise bi nga xamante ni moom laa bëgg tey ñu waxtaanee ko muy jikko yoo xamante ni jàpp naan jikko yi. tey dafa feebar mu mel ni nag àdduna wala àdduna wala ab dëkk du dox lu dul jikko yoo xam ne dafa rafet jikko ji rafet nag yi teeloon na yonent bi sallallahu alayhi wa doon wax ci hadis boobu Buxaari wu soloo ko ni man daal ni yàlla rafetalee sama askan yàlla na ko yàlla rafetale sama jikko kon jikko la am solo la bu ko defee nag yàlla ci alquran da ngay gis ni yonent bi sallallahu alayhi lim ko taggee wa innaka la ala xuluqin azim la ko wax kon nekk jikko mooy tedd nga ak doomu aadama bi kon su ko defee jikko yooyu nag suñ demee ba suñu i ko hypothéqué ay jikko yoo xam ni xamuñu ko woon gisuñu ko woon tey mu tekk loo xamante ni lu terre à terre la ñëpp ko mën a misaal kon dëgg-dëgg kuy wax war ngaa wax su loolu delloowaat population pour ñu gën a bàyyi xel ci jikko yooyu noonu mu mel ni nag jikko yi nga xamante ni dafa nekk fi saraatul islaam yi moom mooy jikko yi nga xamante ni moom moo baax mooy leeral islam jikko yooyu itam boo xoolee moom mooy leeral société bi. jikko bi nga xamante ni nag moom moo gën mooy jikko ji nga xam ne moom ngay njëkkee ñi nga xamante ni moom nga dëkkal ñoom nga dëkkal ci koñ bi ñoom nga dëkkal ci kër gi ndax kër gi nag moom moo war a njëkk a baax avant mbedd bi waaye mbedd mi du baax ba pare te kër gi baaxul. kon kër gi moom mooy bu fekkoon ni magasin la dencuwaay ba nga war a sécuriser ba pare doo ko doo ko doo doo sécuriser feneen ndax yéen paysan wala baykat yi ay la yéwén ku tànn sa jiwu ba mu set nga tànn ko ba mu set daal di koy puudur li ciy bëgg mooy da nga koy jéem a def foo xamante nii dafay daal di dafay daal di dafay daal di am sécurité nga xamante ni dara du ko mën yàq kon nag noonu la doomu aadama bi mën a war ci këram kon yar njaboot gi fexe ba def si ñoom jikko yu rafet ci kër gi avant mbedd mi kon loolu lu jar a bàyyi xel la su ko defee nag alxuluqul alaamatul insaani ma rabbahu jikko ji rafet ci sa diggante ak borom wa ma annaasi ak sa diggante ak nit ñi wa amaali ak say jëf ak say jëflante nit ñi wa ma asawjati ak say soxna wa ma awlaadi ak say doom mu mel ni nag bu fekkee ni sa jigoon diggante la ak sa borom lim la sant ci sa borom mooy fexe ba nga xamante ni sa xol laabal nga ko laa ba yóbbu di ko joxe ba foo génn rek nga mën cee ndax lislaam baatab jàmm la te moom mooy islaam assalaam te moom mooy kon nag su boobaa na fexe ba fekk ci lislaam nga rafetal sa jikko rafetal goo xamante nii ku la gis naaw sa jikko foo tukki ñu bëgg nga resté foo foo foo ku la gis bëgg la koo waxtaanal mu naaw la lool loolu nag yaa ngi koy amee ci yaa ngi koy amee ci lislaam jikko joo xam ne dafa dafa rafet ci sariyatul islaam kon loolu ko nekk war na koo bàyyi xel ah, naka noonu it euh, jikko ji nga xamante ni da nga koy am sa diggante ak sa liggéeyukaay ndax doo waare woon mënul dëkk këram rek resté fa il faut nga dëkk sa il faut nga dem liggéey wala nga jëflante ak nit ñi waaye yor jikko joo xam ne dafa bon a bon a bon ba koo jëflanteel rek ah, mu daal di nawadi sa jikko koo jëflanteel rek mu xeeb la loolu jikko joo xam ne jikko ju bon la loola nag man naam du ñàkk inconvénient yoo xam ne moom moo ko indi ci doomu aadama bi dégg nga ah, ak jikko joo joo xamante ni da koy jëflante moo xam ci diggante ñaari way dencante yi la foofii bu fekkee dafa am jikko fexe koo rafetal ndax it taraanga du dara dencante la ku ne xam ne laaj na teraanga waaye nag lu teraanga ja bari bari te fekk yàlla dogal seen jikkoo rafetul ba mën a composé rek yàgg sëy yu tas yeeg mariage yu yu yi nga xam li ñuy takk léegi bala ñoo kii mu tas wala ñaar ñu ànd dem ba yàgg seen seen seen mbir am jafe-jafe loolu ku nekk mën na koo gën a bàyyi xel ndax it wax dëgg yàlla nit ku nekk war naa xool li koy boole mu nekk nit nekk nite mu nite li nga xam ne mooy tax mu nekk nit nekk loo xamante ni daf day tax nga nekk nit loolu jikko ji rafet daf ci am solo jikko ji rafet nag buñ ko waxee rafetal la bu fekkee kaddu la nga bàyyi si xel sa kaddu bu fekkee jëfalin la nga bàyyi xel sa jëfin bu fekkee tamit nooy xooleel la nga bàyyi kenn sa xoolin waaye lépp daal mi ngi tege si jikko joo xam ne jikko ji rafet te loolu nag dafa tege cim xel te loolu yaakaar naa ni valeur la yoo xam ne war nañ di ko incarner rawat na xale bi nga xamante ni dafay doog a jud dafay doog a dugg wa fi xalwatihi moo xam da ngaa wéet wa fi jalwatihi moo xam da ngaa wéetaliku su ko defee nag su boobaa nag euh, boo wéetee war ngaa wéet ci jikko joo xam ne jikko ji rafet la boo wéetaliku di nga wéetaliku ci jikko joo xam ne jikko ji rafet la waaye koo xamante ne da ngaa yor jikko joo xam ne jikkoy salwisee ganaar la am na fuy rafet am fuy rafet loolu doomu aadama doomu aadama ñëpp ñoo yem même pégalité suñu borom ndax inna akramakum attaqaakum inna akramakum inda llahi attaqaakum la sama borom ci wax wax ci ci ci ci alquran téeram bu tedd ba ni ki gën ci yéen mooy ki nga xamante ni moom moo gën a ragal yàlla kon ragal yàlla googu noonu jikko la ndax bu fekkee ni yàlla dafa dogal fetteer di dafa am nit koo xamante ni rusut daga ragalul dara lu bëgg a wax wax ko loolu ci fetteer loolu jikko ji ñaaw la lu nit ñi tëë siiwal yow lañ koy wax yow nga siiwal ko loolu jikko ji rafet jikko ji rafet na kon kersa da jaa baax kersa nag nekk loo xamante ni lu baax na rawat na nag jigéen moo tax da ngay gis ni yonent bi sallallahu alayhi dafay wax ni ak sara naas maa yudxilu naas fil jannati taqwallah wa husnul xulqi mu ne euh, mu ne li nga xamante li nga xamante ni ñoom ñooy ëpp ñooy dugg aljanna bu aljanna bu bu yowmal xiyaamee mooy ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ba pare daal di rafet jikko kon ndekete ragal yàlla ak rafet jikko ñoom ñooy ànd yonent nee na safar aljanna ñi nga xamante ni ñoom ñoo gën a rafet jikko taraal yàlla ñoo ñii ñoo ko ëpp lu ñuy dugg kon nag bu taxut nag dara sax ku si nekk war naa xam ni rafet jikko lu jar a bàyyi xel la ndax moo lay musal ci lu bari rawat na buñ nekkee ci jamono joo xamante ni jamono jamono ju situation la boo xamante ni bu critique la situation la boo xamante ni bu bëri luy luy fàtte la bu bëri luy dale la bu fekkee yàlla dogal rafet jikko yaree nañu la ko ay lay wen lu bari la a kon daal moom rafet jikko moom su doon wax damay wax ni dañoo nekk ci jamono joo xam ni ku génn ñu dóor la wala ñu agressé la yoo nga yor arme boo xam ne arme bu fort la ci dóor ak agressé bu ko mën a défendre bu ko mën a anti bu ko mën a kade loolu moom mooy rafet jikko kon nag loolu na si ñëpp dana bàyyi xel xam ne rafet jikko moom moo mel noonu su ko defee nag jikkoo nag li benn waykat di wax naan wala boog li li li li wax ni li mu wax ni wal ixlaaqu allati tufsidul mujmaa moom mooy yàq jikko yi li nga xamante ni jikko yi nga xam dafa yàq société ba mu ko doon lim dafa wax ne ñetti ji ñeenti jikko la ñeenti jikko ba ci ne ba nga mooy a annaan ya mooy wax ni man rek maa xew wala man rek maa am wala man rek maa war a wax loolu ku mu nekk si yow jikko rëy ngay doon ndax su boobaa nag yàlla may na la loo xam ne mayu ko sa morom kon su boobaa nag ku si nekk bu la yàlla may da ngay nekk grandeur xam ne lii yàlla moo may waaye kee yàlla may na ko leneen waaye man rek maay xew man rek maa war a xew man rek maa war a xew loolu dafay indi jafe-jafe loolu bokk na si jikko ji bon muy benn bi mu koy lim loolu sax dafa daf koo daax a daax daax ba ci kër yi tey képp koo xam ne jigéen juy sëy nga tey yàlla dogal nga nekk ci sa loxo jëkkër ñëw ci ci jamono joo xamante ni ñëw bu pauvre la yàlla dogal situation di soppeeku bu takkee kenn rek nga ne ah kii kat mu may bëgg a trahir ndax man ba ma koy xam ab tub benn tubayam dong la woon ñu dem ba quelque temps mu commencé am lii kon dama bëgg a jaam loolu bokk na si al anaan yéen loolu baaxul ci ko ju bon la kon nit ki man rek maay xew man rek maay wax man rek maay def keneen xewut lu keneen wax baaxut dëgg-dëgg loolu jikko ju bon la kon ku ko yàlla ku ko yàlla séddee yor nga jikko joo xam ne jikko joo xam ne jikko ju bon la bu ñaareel ba mu ne wasaariq mooy sàcc sàcc nag dafa bari fi nii ndax ñii dañuy bàyyi ba tëdd ñu jug di jël alal nit ñi wala ñenn ñi di la nax ci sa loo xamante ni moom nga bëgg ñu fexe ba nax la ba sàcc la loola bari na moo xam dañ laa dénk lañ la dénk bari lool te yow liñ la dénk dañ laa dénk ni la jiiteel nga am prérogative pour jiite waaye ñi nga jiite xaj na am na ñoo xam ne ay innocent lañ ragaloo ci yàlla nga profité détourné loolu xeeti sàcc la wala nga nekk ba guddi nga xam ni kër sàngam def nañ fay bagage wala balance nañ portable ci bërëb sàngam nga nekk ba guddi nga jël ndax it wax dëgg yàlla fii léegoo-léeg ñu sàcc fi nit te ñañ fiy sàcc dañuy dañuy xam kër ga duñ sooy saa yuñ duggee jël moo tax kiy sàcc en général dafay dëkk ak yow loolu nag moo gën a bon parce que nag mënoo nekk ak sa yaay sa yaay sa yaay ci biir kër gi say baay ci biir kër gi ci biir koñ bi ñu ngay laamisoog sa kër sa moom seen kër nekk ci koñ bi ngay laamisoog ñoom jikko ji bon tax nga nekk bëggul di nga ne xaaral ma wuti lu ma amul ci anam boo xamante ni anam bu légal bu légalul la mooy sàcc loolu bon la moo tax ñaareel ba nga koy lim dañu ñaareel ba moom mooy sàcc sàcc lu bon a yaakaar la kon nag su boobaa buñ la jàppee wala ñu yóbbu la ci yoon mbokk ñaaw na ba faatu rafetal dootul am seen diggante te damay wax ni nag ñaar ñoo am dañoo bokk ab koñ ba mbiri yoon dox seen diggante su boobaa dëgg-dëgg rafetoo dootu ko mën a am moo tax ku si nekk war ngaa mën a sa jikko bàyyi xel sa borom bàyyi xel sa morom kon soo ko defee rek incha allah dina daal am jàmm bu ñaareel ba moom mooy sàcc sàcc anam bu mën doon baaxul dafay tas yaakaar wal xestu moom mooy tirise na bu fekkee ne nag doomu aadama bi yàlla daf koo jox lu mu la joxul nga ni mankat kat li yàlla jox doomu aadama bii ci man la jekk loolu ci xeet triche lañ koy bokkee wala ñu daal di wala sa morom yi ñin la demal nga wuti wala demal nga jàngi wala demal nga defi nangam yow demoo defoo sa morom yi am ba pare nga bëgg a defi pexe ba am loolu ci xeet triche la bokk kon nag yooyu dafay yàqu kon ku bëgg mbooloo moo xam boo ci bokkee yàlla dama dogal nga bokk ci mbooloo tey supposons mbooloo mi ngeen am muy sopp na bi say morom di cotiser yow cotiser woo buñ demee ba jour ba nga profité bëgg ni man kat dinaa war sama mbub bopp te sama cotisation loolu ci xeet crise la bokk ndax sa moroom yi fi ñu toog bëgg nga fee toog te ñaareel ba la nga waroon def defoo ko man naa ñàkk am nga ay det yoo xamante ni yaa ngi am ci biir kees gi loolu ci xeet la bokk ñetteel ba ci jikko yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a suufe ci société bi ci la bokk moom tirité kon ku ne war na koo bàyyi xel moom tirité soxna si mu ne nga abal ñu kon xam naa dañuy jox ñëw teew moo xam góor moo xam jigéen nañu teewal ci banc yi ñu gaawantu balaa mat 45 yi ñu basket ko wax ji jeex su boobaa nag na ñëpp génn ku demoon na ñëw na ñëpp génn ku demoon na ñëw na ñëpp génn waaw su ko defee nag maa ngi ziar baax Cheikh Assane Tine di ko nuyu di ko ziar di nuyu Cheikh Madiama di nuyu sëñ Bale toog di la ziar yooyu bu baax di leen wàcce seen wàccuwaay di ñaan yàlla jotaay bi yàlla na ko yàlla barkeel. bi ñuy présenté sànq suñuy gan imam Dramé mais ya seegul moom it di ku baax di koo xamante ni dëgg-dëgg yàqul koñ bi yàqul quartier bi ndax ci anamu jàngalewaan la fi ñëwoon jàngalewaan la fi ñëwoon. waaye ñëw na ba am kër am daara comme ñëpp bu ñuy wax daaru salaam dàngaan kenn du ko ci génne ma am na fee ñëw mel ne leen toxal ba waa din wax dëgg yàlla dañuy tey ci moom waaye wax dëgg yàlla yàqul koñ bi ku daaral koñ bi mi nga àndal na ak doomi ndey ak Seydina bi di ñoom ñëpp ñoom bokk ci li ñuy yëngu muy daara ja yal na ko yàlla barkeel ak kañu àndal yal dabba dabba moom it di ku baax di borom daara di sëriñu daara moom it ñu koy ziar bu baax di ko wax na dal ak jaamu yegsi na si jataay yegsi na si ñooñam waaw su ko defee mbokk yi maa ngi doon wax rek ci li nga xamante ni mooy ñeenti jikko yoo xamante ni waa ji wa bindoon naa ko nii dafay yàq dafay nekk jikko joo xam ne jikko ju bon la jikko ju suufe la dama waxoon bu njëkk ba mooy al anaan yetu man rek maa fi nekk lu ma wax looloo baax lu ma def looloo baax lu ma saf looloo baax waaye lu ma safut baaxu loolu dëgg-dëgg baaxul ndax loolu dafay dafay suufeel ay dafay suufeel ab société yàlla ci kàttanam wala yàlla boog ci baaxam ni baaxoo bindee amul kenn jenn doomu aadama jum bind jox ko cent pour cent amul benn doomu aadama jum bind jox cent pour cent mus naa di waxtaan ak benn waay ca place l'Indépendance Dakar ca ay jamono bi ma gën a nekk ndaw boo maa ngi jàng yëgal gu mu ni ma doomu aadama mënalul mënalul léppam boppam ma ne ko waaw ñuy wax ba mu jox ma misaal ni ma kat sëñ Mansour si mii ngay gis ni dara yu rafet lay sol waaye wax ji wax ji mënut a ñaw ne dañ koy ñawal jox ko ma ne ko waaw mun na waaw kon 100 pour cent doomu aadama mënut nekk kon moo tax yàlla day may lii sa morom may lële sa morom may lële sa morom su boobaa nag soo bëggee soo bëggee soo bëggee may nga neex la da lay daal di neex waaye wax ni man la yàlla may keneen neexu man li ma yàlla may moom moom moo gën loolu dëgg-dëgg baaxul ci doomu aadama jikko ji suufe la jikko ji bon la. en sax ku ko yor da ko yor doo nekk doo nekk démocrate loola jikko la xam jikko xam jikko ji suufe la jikko ji bon la day yàq société ndax it suñu boroom dogalam yi ci sa morom yi doomi doomi aadama yi. soo bëggee jaamu nangu ko dafay daal di yombal say biir waaye nag bu fekkee toujours da ngay bañ ni kii lañ koy la ko yàlla may sama yoon ci waaye man li ma yàlla may looloo baax loolu baaxu loolu wóoru kon ku si nekk na na bàyyi xel moromam ci boppam moromam ci jaamu ci boromam kon loolu dafay tax ab dëkk am neex waaye loolu bu amee xeebante du am loolu bu amee suufeel sa morom ci sa kaw kaweel sa bopp du am waaye loolu mooy indi la plupart def sa boppu def sa bopp or nit ñi nga def leen përëm loolu da koy indi te moom mooy anaan yeeg gi may wax nii muy benn jikko bi ñaareelu jikko ba moom mooy asaariq moom mooy sàcc sàcc baaxul ci société jikko ji suufe la ndax nag sàcc bi gën a bon nga sàcc sa mbokk mooy sàcc sa dëkkandoo waaye ki nga xam ne dëkkut ak yow mënul laa sàcc ndax xamul la laam sa kër en général ñu ngi fiy tànte sàcc yoo xam ne sàcc yi ni muy jàllee da xam ne ki sàcc sàcc gi moo yow dëkk te doon jikko ju suufee jikko ju bon la te buñ la ci jàppee buñ la yóbboo ci yoon jikko ñaawoo na ko la ñaawoo ngeen ba faaw dootu leen juboo ci kon sàcc jikko ju suufee la ku mën a defar sa jikko ba mën a seet lépp loo xamante ni yàlla wërsëgalal na ko nga jël la la yàlla wërsëgal la la yàlla wërsëgalul li nga xam ne lii kat yàlla wërsëgal bokk na na ci yi nga xamante ni moom mooy jikko ju rafet dama bëgg a wax ni ñaareel ba moom mooy sàcc kon sàcc lu bon la kon nañ bàyyi xel ku mënti doon sàcc nag mën naa tàmbulee ci kër gi ndax sa doom yi boobu bu fekkee danga nga koo yar yar boo xam ne yar bu baaxul la su jëlee yow calculer woo lim jël wala mu génn indi te lim indi calculer woo fan la ko jëlee ak fan la ko jëlee fan la ko jëlee sonal loo ko ci muy la jël loolu ci lay jàngee ndax damay wax ni garab gu daar ci la ay xale di jàngee yéeg ndëngate gu mu mënti doon boo gisee doomu aadama yor ko la plupart boo xoolee ma ngi ko jàngee ca ba muy nekk ndaw te loolu nag ci kër gi lay déparé kon nag ngalawaay nañ yar njaboot gi ci kër gi ba valeur yi nga xamante ni moom mooy valeur yu bon yi nga xamante ni baaxul ci société mu dàqu loolu nag bu déparé ci ci ci kër gi rek yàlla mën na cee sutura kon moo waral sàcc moomu baaxul dafay yàqu société ndax nag ci yàqam société bu fekkee da nga koo def ni tas nga yaakaaram bu fekkee da kaa def ñu jàpp la sa der yàqu na bu boobaa ka ka ka nga bokkal deret su boobaa posé na nga deretam ndax dañ naan diw mi mbokk diw la moom moo sàccoon moo waral sàcc baaxul ci société dafay yàqu di ko yu bon la ñetteel ba mooy wal xulsu moom mooy tirise tirise nag ñu bëri foog nañu ni da ngay bëgg dara mënoo ko am nga defi pexe ba am ca déedéet loolu du tricher loolu du ñu bëri foog nañu ni da nga nit ki am na te lam am mënoo koo jot nga koy soxalee ba bay defi pexe pour pour pour tricher ay mbiram loolu ci tricher la bokk. ba tey tim tricher bokk na ci lépp loo xam ne da nga kaa bokkal mbooloo ngeen réunion ba nga xam ne tey ba ba ba yeewal ñu ne ay na yoon tey su ponson tey lii ñu yore. tey tax ñu organisé na conférence muy daayira sopp na bi ñu waxtaanee ba juboo nga ni man kat dinaa ci def lii wala dinaa ci leb lii nga fas yéene ne su ma ci lebee naa ko delloo bu ñu demee ba bis ba bu fekkee yàlla defal mel noonu ci xeet kilisa boo bokk. ñaareel bu la bu la dëkk bi yëpp wóoloo buñ la wóolooyee jox la sa jox la sa mbir jox la mbir jox la jox la mbiri jaam yëpp nga méngoo ko moo xam jiit goo manti doon su boobaa la nga xamante ni moom mooy njiit ga. bu fekkee defoo ca ñoom nañ ko bëggee rek bokk na ci xeet triché kon triché lu yaatu la loolu jikko yoo xam ne jikko ju suuf jikko ju suufe la kon ku ko yor na ko bàyyi xel jërul ñu koy tàmmal benn xale nañ ko dindi ba set wecc nit daal sa waaw nay sa waaw sa déet nay sa déet loolu mooy nit bu ko defee nag moo waral saa yu la yàlla dimbale ba boole la ci ab groupe groupe ak na dem ndax damay wax na nag dëgg dëgg nag jaamu moom daa fu dëgg amul lépp luñ laal dem rek dëgg da koo laal kon nag su boobaa tirise ci xeeti mbooloo la ëpp lu muy am ah, ci xeeti mbooloo la ëpp lu muy am su boobaa mooy wax wax joo xamante ni da ñëpp a koy dee gis nga jékki-jékki bañ koo seede loolu day xaw a day waa ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax ba muy lim aay yi nga xamante ni moom mooy jëfi naafeq daf ñett la ñi ne ko ban ak ban mu ne salaasa ñu ne ko aayatul munaafiqiina gaa yi ne ah, la ban mu ne koo xamante ni saa yu waxtaanee isa xadasa kasaba wa isa waxana raana saa yoo ko wóor la mu mu wor la bu diggee rendez-vous fausse rendez-vous kon loolu ci xeet la bokk jikko ju baax mënu koo fekkee kon nag loola ku ne war na koo bàyyi xel moo waral doomu aadama ju nekk su yàlla dogal dogalee mu waxante wax ak wax ak ay moromi gorom la mu waxante ak ñoom na ko fexee matal su fekkee manqué na rek tirise am na te tirise baaxul dafay yàq kon nag nañ bàyyi xel loolu tricher kenn du ko wutee mbooloo wala kenn du ko wutee ab succès wala kenn du ko wutee ab sañ-sañ kon nañ bàyyi xel loolu ci wàllu tricher moo ñetteel ba waloon naa moom mooy violence violence nag dafa doon loo xamante ni lu ci bëri moo nekk jikko ji bon moo gën a yées ci jikko yi ndax ci tay ci tay xale boo xam ni jur nañ ko fañ ko war a juree nàmpal ko fañ ko war a nàmpalee partout la jur baayam sañ a dem gendarmerie wala police def signé papier ni man désiré naa juratuma ko loolu violence dana koo bon wala fuñ tuddee diw rek ah kooku doomi diw la te xool leen bu baax doom yi fi tekk yëpp suñ doom yi rek ngay dégg waaye doom yi fi bon yëpp doomi diw rek ngay dégg te nag ci wax jooju ci ngay déggee ni benn nday liggéey loo xamante ne liggéey bu bon nday yëpp dañoo liggéey pour yàlla dogal seen doom añee ko waaye nag fii nag doom ji fi passé à côté ñu ne ah sa ndeyee ko liggéey loolu nañ ko jooyal te doy na waar kon nag su boobaa nag violence day indil mel moo nekk loo xamante ni moo nekk dernière solution ci société bi ndax saa yoo ko xasee exercer rek moo matuloo yow ka nga doon yow jaay yow yàq nga saw askan kon moo waral loolu nit pour mu nekk nit dëgg dëgg dëgg dëgg war ta boppam daa war a teg lépp ci joo xam ne jikko ju rafet la buñ ko ak fa war a dem su amee lu ko naqaree ak ñam war a waxal war a am conseil yu koy conseil kon bu fekkee violence tas na jub rek lépp loo mën yàqu nga ko violence nag baaxul ci baaxul ci kenn waaye rawat na nag fi muy faral di am mooy borom deret ju tàng ndaw loo xamante ni deretam bi ko amagul soxla foofu lay faral di euh, mënee ay mëninam kon violence bokk na ci li nga xamante ni ñeental jikko yi nga xamante ni jikko ju bon la jikko la joo xam ne jikko ci suufe la violence baaxul ci kër gi yow mi nga xam ne yàlla dibal na la sangay takk soxna bu fekkee dem nañ ci kuful taam booy takk war ngaa xool ngay takk ci ma yoo xam ne ci koj goo xamante ne war ngeen mën a def bu fekkee da ngaa fekk ku nekk koo xamante ne ku baax nga takk ku violence kon su boobaa sa kër bu ko tas wala nga di sa yaay koo xam ne dafa violence ci wax guddi wax bëccëg ci la nekk kon dëgg-dëgg loolu baaxul ci kër violence sampul kër en même temps sampul samp sa defarul kër te kër li koy da li koy tabax fexe ba xol yëpp nekk benn kenn du andi violence ci sa morom bis boo jëlee jalgati àq jàmbur rek yaa ngi yaa ngi indi yaa ngi xëcc violence ci sa kanam kon nag su boobaa moom violence moomu bokk na ci jikko yoo xam ne jikko yu jikko yu suufe la rawat na nag ni muy amee rawat na ñi koy def ci làmmiñ moo xam ci làmmiñ nañ ko def moo xam ci jëf lañ ko def rawat na nag violence boo xam mën nañ tuddee violence verbale moo xamante ni presque saaga la ci làmmiñ lay def loolu moo ndax léegoo-léeg nga gis koo xamante ni day doon gor yaa ngi dégg ñi ko jur yëpp nekk gor ñu xas ko xas boo xamante ni daanaka dee da koy gën a mujj loolu nag mooy violence verbale te dafa bari kon nag su boobaa nekk na war ngaa fexe defar sa jikko ba jooju jikko doo ko am jooju doo ko bu ko defee nag yooyu fi muy tàmbalee tey mooy ci kër gi mooy ci kër gi buñ lañ nañ lay yaat ci kër gi parce bu fekkee sadik li ñuy tuddee sadik sadik xale ngay faral di ko boo xam day liij lool soxor nga xamante ni tuur pour mu tuur deret ak jël benn sachet ndox naan ko lay male loolu nag boo ko yaree xale mu dem ba nga xamante ni génn na ci société bu yàqoo moo ko yàq kon nañ fexe ba sa xol di nooy ndax xolu jullit dafa war a nooy comme ni ko Baye Ndao waxee loolu lu am solo la ndax lahinul xol bi xal bi te mooy lewateeg xol dafa yell ci jaamu jaamu dafa yell ci jaamu yàlla bu mën ci doon ndax lahinul xol mooy lewateeg xol ki la yàlla di fondé mbiri ndax xol nag dëgg-dëgg yàlla moom lay introsé fu mu toll ba bari na ci alxuraan fu yàlla di waxee wala zakara ulul albaab yawma laa yanfa'u maalun wala banuuna illaa man atallaa bi qalbin saliim xol bu sell la ni te yaakaar naa ni moom violence moomu mënut ta nekk mukk te fekk xol sell bu fekkee xol sell na rek daal di daax moo tax na général li ci bari ci nit ñi bu ñuy bu ñuy yar doomu aadama am na si ñu ko yàlla nattoo am na ñoo xamante ni duñ dóor doom doomu am na si ñoo xamante ni tey boo dóoree seen xol jeex na ña ngay jooy te ñoom pourtant sax mun naa am du ñàkk nañ leen yaree moo gën a metti moo gën a tar boole na fi tey jii doom sëriñ daar yëpp mun ñoo jàngal seen doom te ñoom ñoo fi dàq dañ leen a dóor ba tas waaye ñun ñoo jàngal seen doom yi koo ci laal dem ne bul laal bàyyi noonu dina baax li ko waral violence la bañ violence tamit boo ci yaree sa njaboot moo tax moo tax toujours xale liñ ko yaree wala boog li mu nàmp loolu yi lay gàll gis nga xale dafa am dafa am ñaari xale yoo xamante ni kenn ki bàyyam comme gaynde daanaka day dóor rek am ci koo xamante ni bàyyi ji moo gën a lewet moo gën a lewet nag moo gën a lewet nag nag nag nag woowu ñuy tuddee taapaang moo gën a lewet kooku da gis ni ñoom ñaar bi ñu bokkee yar ñoom ñaar bi ñu bokkee yar gis nga ni ki nga xamante ni moom toujours dafa mel ni gayndeek njolloor ci dóor walla ci jubbanti kee biñ màggee ki nga xamante ni moom moo ëpp résultat mooy kiñ doon ci nekk nekkal nekkul ñëpp lañ koy def nag waaye nag dama ni nga njëkkee loolu ba pare ndax it loo gis xarañte la violence ba na ko ko teg ci kaw doomu aadama na fekk mu nekk nit ku violence damay wax ni ku baax nañ ko defal yëfi ku baax waaye ku violence nañ ko defal yëfi ku violence loolooy dëgg bu ko defee nag moom violence moom bokk na ci jikko yi nga xamante ni jikko yi gën a suufee ci la bokk tey fi mu ñu ngi koy gis ci société bi moo xam verbal la wax nit loo xam ne waroo koo wax yàq deram amoo kersa ruusoo ragaloo ci la bokk kon bu ko defee loolu nañ ci gën a bàyyi xel xam ni daal yooyu waykat ba doon yonent bi waykat da moo doon wax naan wala tax du ixlaaqul kiraami fa innama ixlaaqul insaan qad saara insaan nee na yow daal bul topp jikkoy tedd yi di ko ndamoo di ko ndamoo ba yow jéemoon naaw si jikko yi nga xam ne mooy jikko yu baax yi kon ku ci nekk war ngaa fexe jikko jéew xam ne jikko ju tedd la nga jéem koo écouter sa bopp jéem koo yaral sa bopp ak foo ko gisee ndax lu baax lépp a baax lu bon na moo mënul fexe bon kon nañ ci gën a bàyyi xel bu baax a baax yonent moom mooy wax na yudrikul mawtu bil husnil xulqi darajatin saay mu ne bu fekkee doomu aadama bi dina soxlawoo rafet jikko am darajaay ku yoor ku woor kon ndekete boo sa jikko rafetee man nga am darajaay ku woor kon loolu yonent wax na ko su ko defee su boobaa nag fexe ba rafetal jikko yi moo xam noo ko mën a rafetalee nga ci gën cee bàyyi xel ndax loolu dafay daal di am solo ndax yonent boppam bu fekkee dafay wax ni jikko yi woor ni mu rafetee maam boo rafet sa jikko bu rafetee mel na ni ku woor ku weeru koor wala ku woor noonu la mel woor dëgg-dëgg lu màgg la ndax woo yàlla bi nga xamante ni andi na weeru koor daf laa yëgleel benn woor nga woor ko te ba muy xam ne laan la ta taxu na kon foofu la yem ci weeru ko ba nga koy ñëw di aat bi kutiba siyaamu kama kutiba alal lazina min qablikum laan la ta taxu na ndege kon koor gi ak lépp ragal yàlla rek la ci jublu te sa jikko bu rafetee rek mën ngaa làmboo ragal yàlla wat su boobaa di nga rus su boobaa di nga am kersa su boobaa doo war a wax li nga war a wax doo doo war a wax loo xam ne waroo koo wax doo dugg foo xam ne waroo koo dugg tey di nga teey waaye moo gën nag yeneen jikko yi nga xamante ni moom mooy contraire jikko ci rafet kon loolu la si ñëpp gën a bàyyi xel xam ne société bi daal li koy yàq loolu bokk na ci kon su ko defee nag na bàyyi ñi nga xamante ni nag eh, yàlla dogal na ñoom ñooy kër gi ñoom ñoom moom kër gi ñoom daf cee amoon fukki jikko yoo xamante ni dañ koo génne woon ni baaxul ci jigéen jigéen joo xam ne dafa ñàkk kersa jigéen joo xamante ni dafa ñàkk kersa amul kersa ci dara lu mu wax dina ko wax rusut ragalut tadu raf mu ne boobu jigéen yow booy ute yow góor bàyyi dégg nga ñaareel ba mooy jigéen ji nga xamante ni ya yonent sax mooy mu ne alxaya alxay alxaya xayra riwaaya bi la wax am benn wax alxayaawu laa yaati illa bi xayri kon ci ngay déggee ni kersa daal léppam yiw la kersa léppam yiw la kon nañ bàyyi xel kersa baax na ci góor baax na ci jigéen ni mu baaxee ci góor noonu la baaxee jigéen waaye nag yonentu dafa bind jigéen ak Diop dafa am bindu jigéen ak quatre-vingt-dix secret kersa góor mu jox ko fukki kersa ya su ko defee nag saay bu góor saay bu jigéen ausee ba ñime ba def lu mu warul def rek kersa ya fay naaw yeneen dix kersa yi mu jox góor nag moom mën naa téye nag mën naa téye moom mën naa téye mën naa koo téye moom mën naa bañ a naaw donte sax mën nañ ko ne def lu bon kon góor dafa jigéen ak ni ko yàlla bindee bokkut ak jigéen li ko yàlla bindee bokkut ak jigéen jigéen dafa sensible ci mbindeem ci lépp sax boo xoolee jigéen léppam dafa sensible kon jigéen moo war a gën a mën a yeyoo kersa ndax ñoom ñooy ndey yi wooy jur yi moom ñoom ñoom ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy ndey njaboot gi ci kër gi kon ñoom ñoom ñoo gën a yeyoo kersa moo tax bu njëkk ba mooy jigéen ji nga xam ne dafa ñàkk kersa dégg nga beneen jigéen bi nga xam ne mooy jigéen ji nga xam ne wax waxam dafa bari fu mu toll dafay wax te wax ju bari amul njariñ yàlla sax bi muy xas mbaam dañu ko inna ankaara la sawaati la sawti lomoom loolu la yàlla wax ci alquran kon bu fekkoon ni wax ju bari am na njariñ ci société bi mbaam fii dàq wax ndax mbaam fu maaxee ñi dégg ko kon wax ju bari amul solo wax ndànk dal ndànk bokk na ci li nga xam dafay taaral mbiru jigéen dina taaral lu jigéen kon loolu na ci bàyyi xel yonent sax mooy wax naan yonent sax mooy wax man kaan yu'minu billaahi wal yawmil aaxir falyaqul xayru aw liyasmut loolu hadis la boobu yonent moom moo ko wax kon nag wax damay wax ni bu fekkoon nii bu fekkoon ni wax or la bu fekkoon ni wax bu fekkoon ni wax wax përëm la nopp moom pour or lay doon kon loolu na ci ñëpp gën a bàyyi xel xam ni jigéen dafa war a am kersa beneen bi mooy jigéen ji nga xamante ni du doyluwut doyluwut ci dara lépp loo xamante ni lu matérialisme la daf koy bàyyi xel fu mu toll loolu kuy kuy kuy wut na ko bàyyi ndax baaxul ci dara ndax matérialisme bokk na ci li yàqu société bi ndax série yi ñuy seetaan ci télévision yi ñu bari jàpp nañ noonu la mel ñu bari jàpp nañ noonu la mel te fekk melul noonu ndax ñu bari la ñuy fay ñu fay leen jox leen koñ koy joué appartement bu luxe jox leen ay téléphone jox leen ay oto yu ñuy war nga yaakaar noonu la mel su boobaa nag yow jigéen ji yaa ngi jàpp ni noonu la mel fekk dañ koo def mu nekk produit boo xam dañ koy implanté pour yàqal la ci sa liggéey pour nga mën a sëy kon loolu na ci gën a bàyyi xel matérialisme wóoru ku si nekk ak lii sa wërsëg tey wax dëgg yàlla àdduna baa ngi dox ndax it wàllu woowu àdduna àdduna baa ngi ciy dox bu baax a baax a baax tey jii fépp foo xam ne dañ ko muuree seet seret di ko di oto koy indi kon nañ doylu ku si nekk ak sa cër ku si nekk. bismillaahi rahmaani rahiim ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn di góor di jigéen ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu góor di jigéen di nuyu waa groupe sopp na bi ñu ngi leen di nuyu bu baax. di leen wax ne jaa ngeen jëf jaa ngeen jëf jàmbaar ngeen ndax wax dëgg yàlla sopp na bi bu yegsee fii yàlla ak yéen ndax seen dërëm seen ñaar dërëm seen tànk seen ñëw maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di nuyu nag baabakar njaay ndax kat gëlëm bu lëg bu lekkee aloom na ko gërëmee coy ndax yàlla ak Babacar moo tax suñu suñu conférence yegg si ba fii tey ndax ba ñuy doog a conférence ci moom la njëkk a ñëw moo ñuy guider di ñu jàppale ba ñu yegg si fii tey kon nag wax dëgg yàlla am na ngërëm yelloo na ngërëm yennoo na it jërëjëf Babacar Ndiaye jërëjëf yal na la yàlla fay lépp li nga def ci conférence bi yal na la ko yàlla defal ay yiw yàlla bu ci rëccu am yàlla buñ ci gisit suñ bopp ñu nit ba duñ la mun a gërëm Issa Sarr jëf ndax yow ak ki ñu doon conférence fi doon ànd te boobu ba léegi bu buñ la ooyee nga ñëw moo ñu doon conférence yàlla yàlla weddi waaye yow bàyyi woo boobu ba léegi yaa ngi ñëw ñu lay gërëm di la sant grand Omar jërë nga jëf yow moom li may wax toujours yow sama mag nga doo suma délégué ndax lu tax ba nga may yar boobu xale bu ndaw laa boobu xamuñ li yëpp dana am te ba fi ñu toll tey jii lu may wut ci kayit yow laa koy jox dama lay fekk nga nelaw ma yee la ma fekk la ngay lekk ma wax ak yow nga bàyyi lu nekk ma nekk ci yow nga nga di ma ko defal kon nag maa ngi lay gërëm di la sant ndax munoon nga maa wax kat fi mu ne ne délégué laa munatuma yooyu aw ma jotam li ma yore ci ay kayit rek dooy na ma waaye sa dërëm sax da ciy dem te doo wax sa dërëm sax day dem ci kayit yi te doo wax kon nag jërëjëf Thiam maa ngi lay ñaanal li nga bëgg yaa xam yal ko yàlla defal kon bii nga yenu yàlla nga ko àttan yàlla na gi oyof maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp di leen ñaanal di leen wax jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ah dangaa caalit rek waaye ñun dañoo delloo buum ca boy boy ba rek ndax buñ la juree xamuñu man de xaw moo ne da ngay conférence xaw woon ne da ngay conférence waaye bañ ma ko waxee ma ne nañ ñam bañ ñamee it neex na te incha allah ndegam neex na dañuy bëgg continuer rek ba fa ko yàlla yemale yàlla na ko yemale fu neex yàlla yàlla na yem ci fu neex yàlla maa ngi sant ñëpp di leen gërëm ñi fi indi seen parrain ñi fi indi dërëm ñi fi indi ñaar dërëm ñi fi dox ak seen tànk ñëw yal na ko yàlla def yiw képp ku fi indi dërëm yal na ko yàlla yokk ful ko ba mu nekk ay millions képp ku fi ñëw yal na la yàlla defal tiyaaba yal na la yàlla sàmm aar la làq la fa yàq yeggul yàlla mën na ko yal na ko yàlla def jërë ngeen jëf kontaan nañ trop lii rek lañ bëggoon te am nañ ko lii lañ bëggoon te am nañ ko jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf duñu neñ leen yéen ñëpp ci groupe bi moo représenté imam Mouhamadul Habib Ka muy imam Issa Sarr di imaamu jaamic bi di nuyu mboolem aimma yi fi daje ak asaatise yi di nuyu soxna yi nga xam ne ñooy daairatu sopp nabi ak mboolem membre yi di nuyu kadalika ñi nga xam ni ñoo doon tagg yonent bi alayhi salaatu salaam di nuyu ñi doon jàng kaamilu alquraan yi ak dëkkandoo yeeg soppe yeeg xarit yeeg am di jàmm yépp di ñaan yàlla jotaay bi yàlla ko yàlla def mu yiw yàlla natt ko ci daraja yonent bi ni mu toll mu séddale ko ñi fi toog ñépp ak mboolem koo xam ne def na ci alalam waaye mu làmb quartier bi làmb réew mi rawatina ci jotaay yi ñu nekk ak bis yi nga xam ne ñu ngi jëm ni ci ay élection yàlla def jàmm ci réew mi def fi dal def fi sutura yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci barki chehru ramadan bii ñu nekk ci barki alquranul karim bi mu wàccee ci weer wii ci barki laylatul xadr di nuyu soxna yi nga xam ne ñoo organiser lii ci njiital soxna Fat Naar soxna Tabara soxna Awa Diop soxna Adama Fall soxna Ndeela juuf ak mboolem soxna yi topp ci seen gannaaw daairatu sopp nabi ci mbootaay solidarité la juddoo waaye dimbalante alquran moo ko jàngale wa taawanu ala al birri wa taqwa dimbalante boo su ko yàlla gërëmee jotaay yañ fay daje ak xelaat yi ñuy wax yàlla da koy gërëm moom moo jur lii kon jotaay yooyu yàgg la woon ñu ko daan def ci njiital soxna aadama Fall moom mi doomam tey tabaarakallaahu toog fii def conférence di gërëm moom al muhaadar al sayid al imam moor Seck def na muhaadara bu am solo di nuyu tamit délégué de quartier di ko ñaanal yàlla yenn bi yàlla na ko ci yàlla defal suutura ba fi mu bëgg ci quartier bi jëm yàlla defal ko ci lu kawe njortam defal ñu ko ñun ñëpp xanaa di leen jéggalu na xam naa ne toog fii jëluma kàddu déedéet damay bañ a jël kàddu ñeneen ñi dootuñ jël kàddu jotaay dafa am nu muy doxee ndax xam naa ne su ma jëlee kàddu imaam euh, sëriñ daara dootul nangoo jël kàddu waaye nag kàddu yi dafa am ay tartiib Issa Sarr dama ne ko yaay tëj ndax yaa fi wuutu imaam Mouhamadul Habib yaakaar naa noonu la daan jotaay bi doon de doxee su imaam toogee mooy tëj jotaay bi mboolem masaajid yi fi nekk mooy jàkk yi fi nekk ak jumaa yi imaam Muhammadul Habib mooy seen njiit ndax balaa fii di am jàkka wala jumaa ñëpp ñu ngi doon julli ci jumaa ju mag kon kilifteef googu moo fi nekk su ñëwul ku mu yebal rek mooy imaam Muhammadul Habib waaye fii sama quartier la sama kër la te doyadi wu ma fi defuma fi lu lu may doyadalee sama bopp kon du ma toog fii di def yi fi doyadi moo tax bu mu nit ñi foog ne dama fi toog ne du ma jël kàddu déedéet mbir dafa am tartib dafa am yoon wu muy jaar yoon woow la ñuy jaarale rek waaye su ma su ma jëlee kàddu kii jëlul kàddu day moo tax ma ne ko yow yaay tëj jotaay bi mu ne ma déedéet sarax ma ma ne ko déedéet yaa fi toogal imam Mouhamadul Habib noonu la ñu ngi sant bu baax Euh, imaam Mor Seck def na muxaadara bu am solo muxaadara bi muxaadaratul xakim la bi maanaa xakim benn xam-xam la boo xam ne suñu boroom da koy jox ku ko soob nee na alxikma kii ne ko ne ko ay nit a nekk fii ci gannaaw de mu ngi arrière rek de chauffeur bi am na ñu nekk fii de ah am na ku fa taxaw waaye da wax comme ñoom seen oto yi lu leen neex lañ ciy def waaw muxaadaratul xakim la alquran dafa wax ne alxikma alxikma bi yadillahi wala alfadl bi yadillahi yutihi man yasha ngëneel la boo xam ne yàllaa koy jox ko ko soob sëñ moor def na muxaadara boo xam ne bariwul aaya yum andi wala xadiis waaye lu mu la wax day gaaw a dugg sa nopp loolu mooy xam-xam xikma nit nag dana jàng ba ba yëy téere yi niñ koy waxee mais du am xikma bi maanaa du am talaaqatul lisaan nu mën a waxee xam-xam bu nit mën a dégg ba jëriñu ci du am pédagogie waaye tabaarakallahu moom yàlla defal na ko xikma li muy wax nii dugg na ci nopp yi de dugg na ci xol yi ndax macha allahu imaam moor ku baax la am na xel mu rafet moom ak imaam sëñ daara mii gis nga bi ñuy def suñu mbootaayu fii ci koñ bi may échangeante ñoom ay xalaat laa ne saa yi xale yi ndeke xale yu ngi nii xelaat yu rafet lañu am te loolu dafa am solo jotaay yi ñu fi def yàlla xam ne na su réussiree quatre-vingt pour cent yi ci ñoom ñaar ñii mooy imam Mor imam sëriñ Daara ak Youssou Ndiaye male ñooñ nag dañ leen di ñaanal yàlla ñu yàgg fi gis nga xale yi suñ fi yàggee lépp lu ñu bëgg suñu quartier bi incha allahu da daneen ko am ay ndaw leen seen loxo set neen seen xel rafet na te teey neen te dal neen te loolu alhamdulilah noonu la mën a demee ànd ak loolu ñu ngi am taxawaay yu am solo yu ñu taxaw ci quartier bi amee fi ay daara di doxal imaam jërëjëf yàlla yàlla fay la wax ji rafet na lool sëñ daara def na ci taaliq damay bañ a duggaat foofu yàlla neen ko dégg te jëfe ko moom woy juróom ku baax la woy juróom bu jigéen ku baax la toog naa papam mii di ma seedeel maamam bi jur yaayam bi maanaa yaayu aadama faal ci mbaax waxuma ci aadama faal de wa ma may seedeel ci mbaax ci yaayam waaye gis nga jëkkër su demee bay seede baaxu goroom la ko jabar ja jëfa tax loolu nga ciy déggee waaye am na jab jëkkër noo ko métitalee bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatuhu wasalaamuhu ala sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yawmi ddin amma ba'd gannaaw bi ñu mosloo ci saytaane sant yàlla jàll julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi wax asalaamu min allahi aleykum wa aleyna wa rahmatu minhu wa barakaatuhu di ñaan yàlla nuyoo lu mu làmboo ñu ko yàlla boole defal yal nañ ko muurloo suñu cant ñu ngi koy def ci délégué de quartier Omar Thiam di suñu mag di suñu xarit di suñu soppe mu jottali ñu ko waa groupe soppe bi nga xam ne suñuy seexandoole suñuy doomu ndey lañ ndax nii la daan demee bu mu jógee ci conférence bii rek Ousmane it doon woote Badar ñu ñëw taaral ko ànd ñoom ñëpp ñëw fekkee ko kon ñu ngi leen koy fàttali Badar bi mu ngi suñu kanam seen bés la seen bés la ndax ki leen doon defal conférence bi moo ko doon taxawee ñëw taxawu seen bos taxawu bosam ngeen ñëw jàppale ko ca taaral ko kon ñu ngi leen koy fàttali incha allah di sant ñëpp di gërëm ñëpp. di wax ne li am solo ci dund doomu aadama lii ci la bokk lii ci la bokk ndax nit ki jamono ju ne ak saay su ne dafay waram a mun a liggéey ngir ëllëgam ci yeewu nañu dajoo dajale li ñu am woow boroom xam-xam mu fàttali ñu lenn ci suñu dund loolu tuutiwul ndax sallallahu alayhi wa sallama dundam bi yëpp message yooyu rek la doon joxe dundam bi yëpp loolu rek la doon wax fexe ba nit ñi jaamu seen borom jëfe ay ndigalam bàyyi ay terew kon jigéen ñi woote nag bëgg na bi ñu wax leen ci seen dund seen digganteeg seen i borom kër seen digganteeg seen i dëkkandoor seen diggante ak seeni njaboot ah, wax dëgg yàlla li ñu jot a fekkee ci waxtaan bi ku ci bàyyi xel te xerewlu ko def ko sa kanam mën na la gidde ba demit nga jëlaat beneen tar waxkat nag boo ko wooyee pour mu wax la da ngay fele jël ca donte benn la nga jëfandikoo ko ren ba waaye ëpp na nga jëlee fi yëpp dem kese jëlee dara loo fi jëlee loo mën a jëfandikoo daanaka daanaka wala bàyyi leen xel ci ñi ngeen di woo ñuy wax ak yéen boo mënul jël lépp jël ci benn point nga ne bii de bu neexee yàlla fas yéene naa ko jëfandikoo te ko baax muy njëriñu tey. di njëriñu ëllëg ndax ñii